هذا رسول لله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بصف ملائك بسطوا إليك أكفهم بتفاني يتلقنون صلاتك العظمى التي ما بدا للجنس من حربان والحور من asalaamaaleykum mbokku téléspectateur u Malikia TV leeru Maodo ñi ngi fii ci ëttu Cheikh abu Aboubacar si toog ak suñu wéyjur suñu xarit suñu soppe soxna Kala Mbaye ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla guddal fanam yàlla bàyyi ko ci kanamu mboole lu yàgg yàgg yàgg tey nag nekk bis bi nga xamante ne si suñu sëriñ ba suñu kilifa ga génnoon àdduna muy Serigne Papa Malick Sy nekkoon caatu Cheikh Seydi Aboubacar Sy waaye ginnaaw ba Serigne Abdoul Aziz Al Amin génne àdduna mu taxaw ci wetu jarbaatam soppeem soxna mu Kalsum Mbaye ñu bëggoon ko dégtal rekk mu sànni kàddu yi nga xamante ni moom lay wax ci limu xam ci sëñ pap malik ak taxaway bi nga xamanteni taxaw nako ci ginnaw Serigne Abdoul Aziz Al Amin ci wetam ni ko nga xamanteni non la ko magam ji taxaw assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ah ñoo ngi sant yàlla bu baax nak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal sunu mam Cheikh Seydi Hadji malik ak njabotam bi ci suuf yalla na leen ah li nu fi taxa daje tey rek mooy bisu sëñ Pape Malick nekkoon bis boo xam ne nag bis bu metti la te tiis waaye nag ku dul may sa bopp loolu la yàlla may nga jël te yàlla nag du jóom te ku dul jóom noo def noonu la ah, bu fi doon bàyyi kenn bàyyi fi yonent bi sallallahu alayhi wa te sëñ Abdou Aziz daan wax ni ku dem ba Medinatul Munawwara tiiwu raru Seydina Muhammad nee na nga ñëw ba Faas Tim rawdu cheikh na ahmed tidiane serif nga ñew ba tiwawon tim seydi hadji malik ak njabotam gi mu teudal tim seigne babacar si ak ni mu teudal nga dem fi sëriñ cheikh teud pa malik teud fa ko ñak rek am nga foko tek mu nekkon nak nit ku bax nak nit ku oyof nekkon nit bo xamni ni nitu jamono la fa tabarakallah ndax bor boko xecc rek di nga ca fekk yalla nekkoon nag li gën a jafe mooy nit ku tabe xëñ Pape Malick bu ma see dugg Tiwaawan buy dem essence sax du ko am ndax li mu yër yëpp da koy joxe ah mu nekkoon ak magam sëriñ Cheikh na Ahmed Tidiane si almaktum yal na ko yàlla dolli leer sëriñ kër yëkkati woon ko jox ko sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh defloo ko lu ne moom it tar bi ne bu ne defal na ko sëriñ Cheikh ya yàlla dogal sëriñ Cheikh jóge fi mu ànd ak sëriñ Abdou seigne Abdou di fi jóge bàyyi ko fi ak ñun waye nak lima wax rek yalla du doom mu nekkon itam nit ko xam ni ku fonkon service su Seydi Hadji malik Sy la lepp lu mu am ci la koy def suba ak ngoon guddi ak bëccëg nekkon nit ko xam nak nag taalibe amon nañ ci mom yakkar waye yakkar bi tasul yalla ñew rek yalla bu xasse jeexal kenn mënu ci dara waye sëñ Pape malik nit ku bax nit ku oyof bi fi sëñ du jógee dafa def loo xam ne nii oyof manu koo weesu. sëñ Abdou dafay jóge ba am ñeent fukki fan sëñ Pape Malick ñëw fi muy weer ak fukki fan mu xëy ma xëy suba ñu woo ma ni ma sëñ Pape Malick nee dafay seet si tey daayiratu Nihmati nuyuwaale jigéen ñi. ma woo quelques membres rek mu ñëw bi mu ñëwee ci salle bi ku ne ñu présenté ko koo ko présenté laaj na ko ñaari waajuram koo ko présenté laaj na ko borom këram. toog ba ñu nuyoo mu ñaanal nu ni fi leen sëñ Abdou féete woon mënuma lépp waaye lu ma man dinaa ko ci def wàllu daayira bi itam lépp lu ci xew su ma ko yëgee dinaa teew mu dinu ko defal bu nu ziyaaree mu ñëw fa tabarakallah bu nu conférencé mu ñëw xeebunu ci dara ba yàlla mi nga xam ne mooy dogal nag dogal li mu dogal ci moom waaye kenn doyalul ci moom man ba léegi mënuma xool fotoom nit ñi itam wax dëgg yàlla dañoo amoon fun ko teg bëgg ko di nit ku baax di nit ku am personnalité sëñ Pape Malick ku am dignité la ku am personnalité la gis nga nit léegi laa koy wax dignité ak personnalité bu jógee ci nit dara desuti yenent bi moo gën ñëpp te kenn gënu ko waaye yàlla taggu ko lu dul ci jikko bu rafet te personnalité ak dignité ci jikko bu rafet la mook jikko bu rafet ñoo ànd sëñ Pape Malick mel noo xam ne nii ci njabootu sëñ kër man dafa am lu ma xool ci moom gis nga gàmmu Tiwaawan nag yi nuy indi ak lun fi mën a indi sëñ Pape Malick biteelu ndox du ko topp këram xam nga loolu dignité mënatu koo weesu ak personnalité te Serigne Cheikh dañoo toogoon bi ma feebaree ba nekk Dakar bi nu paree di ñibbi mu recevoir mi maag soxna Daba waaye xam nga lu mu wax def ni na ngeen sagal seen maam Seydi Hadji Malick ni ngeen koy sagale nag mooy dignité ju mat ak personnalité bu mat mu nit ku baax bu ca dignité jógee dara desatu ja ca nag loolu la ko yàlla mayoon dignité personnalité murit yi bëgg ko tiijaan yi bëgg ko tarixa yépp ko bëggoon rawatina nag kër Seydi Hadji Malick mu nekkoon sunuy bët bi nu ñàkkee sëñ Abdou li muy metti metti dañ ni comme sëñ Pam a ngi fi rekk daal dootul metteeti waaye nag xam nga yàlla nee nañ bu doon sant njuuy lay sant waaye nag looloo neex sans borom foofu la yàlla yamale dundam dund na ci sutura dund ci teraanga ba dem kenn xamul ci moom dara sëñ Pape Maye daal wax dëgg yàlla kenn amul loo ci wax lu di ko ñaanal yàlla yàlla teeroo ko yërmandeeg njéggal wanale koog maamam Seydi Hadji Malick wanale koog baayam sëñ Babacar wanale koog Cheikh ba ci yonent bi wanele koog ñu baax ñëpp ah, yàlla nag yàlla na fi wuutu yàlla lu mu randal wuutu fi te lu mu lu mu wuutu gën fa ah kër gi itam lu mu mënoon ci dooleem doon nag ko def ah, kër gi nag santuwul si yàlla la sant ku yàlla ñor ci nga bokk sutura bi fi yàlla defit def na ko fi génération bu ñëw ci sutura boobu ngay nekk ndax par génération la nag te dama leen di wax ni leen mission démb rek laa leen ko wax ci dëju ji bi ngom ma ni leen mission bi mission la boo xam ni fu général daanoo rek général taxaw loolu la yàlla defal Seydi Hadji Malick Sy ah yàlla ko yàlla fay daal fa mu tëdd ci dara jo yenente bi ak ni magam ju baax ja mu tëddal ak ñi mu tëddal ñëpp yàlla na yàlla wuutu ni ci ñoom ci dara jo yenente bi sallallahu alayhi jërëjëf nday ci kaddu yi rafet yooyu nga xamante ni yëkkati nga ko jëmee ko ci sa nijaay sa xarit muy Serigne Pape Malick si waaye nekkoon xaritu ñëpp waaw ku ñëpp sopp dama yaakaar ni cofeel bi sëñ Babacar amoon ci moom moom la wàll njaboot gi yëpp ñëpp sopp ko kon ñu ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla dolli leeram yàlla wane la kook mag ñu baax ña kon ni nga ko ñaanee xanaa ñu bàyyi la rek nga tàggoo toog euh, nit ñi ci kaddu yu gàtt rek waaye di la dégtal tam yóbbante jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci télévision bi ñoom ñëpp ñu ngi may ñi ngi yóbbante ay nuyu ak ay ziar di wane tam seen cofeel ci yow ngir yàlla gis biñ la gis ni nga taxawee ci xadara bi ak cofeel bi nga ëmbal télévision bi. ah xanaa rek tàggoo bi moom mooy ñaanal télévision bi rek Malikia TV yal na yàlla yokk ko ci leeru Seydi Hadji Malick bi ngeen ko tuddee mu dem ba nekk ay télé télé tasaaroo ci ba ku bëgg a xool rek dara Tiwaawan xool ko ci di jaalee sunu bokk yi ca Sinja nag ñu général ba fa daanu muy Alaaji Jibi Ngom doon koo xam ne nii li muy wéradi wéradi daf doon soox ak pas-pasam ñu di ko ñaanal yàlla ak ñi fi jóge ñëpp nag ku fi jóge rek ci at mi yal na la yàlla teeroo yërmande te mu ànd ak njéggal di wax waa daayiratul ñaaxmati ni leen samedi daal ñu daja jàmmalaay ci kattanu yàlla ak mbaaxam ngir feddali sunu kóodale ak sëñ Aline Sall waaye feddali suñu gólle rek njaboot gi mu fi bàyyi wéttali leen ci seen bis bi incha allah dinañ fi jógee samedi 10 heures wutali jàmmalaay ci kattanu yàlla ak mbaaxam yal yàlla def jàmm ñoo ngi sant ñëpp gërëm ñëpp ñaanal ñëpp Malikia TV daal ca kanam ya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 ثم الصلاة على النبي وآلي من ربي في ربي الحنان ما خال أحمد لتجاني منشدا فإليك يا ابن محمد نادان